سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما وأغرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا والرحمة bokk yi nga xam ni yéen a baaxoo ànd ak ñun ci kër gi di As-Samadiyya TV noo ngi leen di nuyu ci nuyoob lislaam di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa di leen nuyoo nag fii ci Touba Mbacke al Mahrousa di jiital ci nuyoo bi niñ ko baaxoo defee alxalifatul am li taifa al muridiya xafidahullahu waraa al cheikh Mouhamadinil Muntaqa ibnu cheikh Bachir di ko ñaanal borom subhaanahu wa la dolli koo sàmm dolli ko aar ba li yéene ci lislaam yéene ko ci yoon wi mu am ci lu kawe njort naka noonu noonu la ñuy bari la ab nuyo ak cheikh Abdou Samad ibn cheikh Souhaïbou Mbacké mi nga xam ni mooy kilifa kër gi di As-Samadiyya di ko ñaanal moom it borom bi subhaanahu wa la mottali ay mébétam ak ay yéeneem ci toolub lislaam bi nga xam ne nii ci la maamam ju tedd ja nekkoon di bay ak Cheikh Ahmad Bamba Xadimu Rasul ñu am mbégte ci présenté leen suñu émission bi nga xam ne miin ngeen ko léegi te mooy l'univers coranique l'univers coranique nag yaakaar na xam ngeen concept l'univers coranique te mooy jël benn aay wala ñaar wala ñett wala lu mu laaj rekk def ko tafsir ilmi maanaam tafsir boo xam ne dafay am rapport li bokki scientifique yi trouvé ci fi nga xam ni mooy univers bi nga xam ni kenn sàkk ko kudul yàlla bu ngeen dee bàyyi xel tam toujours suñu générique muy sanurihim ayatina dañuy baaxoo di ko fàttali pour bokk yi gën a xam yàlla waxoon ni danaa leen woon sama kawteef fi fi laafaaq yi wa fi anfusihim ci origine yi ak ci seen jëmmi bopp yi xataa yatabayyana lahum annul xataa yatabayyana lahum annahul xaq ba ñu xam ni alquran mooy dëgg bokk yi su ko defee tey dañu fa yéene dikk ci ñaari aaya yu gàtt buñ ci mënee toftal ñetteel bi ndax ñetteel bi dinañ ko bereel sax émission spéciale waaye dina am lenn luñ ciy jël tey aaya yooyu mooy aya vingt six vingt sept vingt huit suuratu almursalaat borom bi subhaanahu wax wax joo xam ni dafa poser question wax ni alam najalil arda kifaata axyaan wa amwaata wa jacalna fiha rawasiya shaamixaatin wa asqaynaakum maa an question bi borom bi posé foofu mooy alam najalil arda kifaata ndax du ñun ñoo def suuf mu nekk loo xam ni kifaata baatu kifaata boobu mooy suñu dëgg-dëgg émission tey kifaata bokk yi kifaata ci langue arab dafa am ay maani euh, mutaaddida wa muxtalifa dafa am ay sens yu différente yu mu amee moom ki faata baatu ki faata suñ borom ni ndax du ñun ñoo def suuf ki faata mu nekk loo xam ni euh, lu kifaata la faata boobu euh, sens yi mu am mooy suñu tafsiru tey te sens bu nekk li sens yi di wuute wute sens bu ne suuf amee na ko maanaam benn baat la yàlla utiliser mu yor sens yu yu bari lu mat juróomi sens ba juróom benn wala lu ko ëpp te sens bu ne dañuy gis suuf amee sens boobu amee melo woon muy lu yéeme luy wane ne alquran eh, huwal kitaabul jaamia maanaam téere la boo xam ni dafa dafa dafa dajale maanaam dafa dafay ëmb ay sens yu bari dañ ci dañ ciy dégg aaya boo xam day ëmb ay sens yu bari ay pirin yu bari yoo xam ni du safaano benn firi du ci safaanoo moroomam loolu ci alxuraan rek lañ koy gis bokki baay baatu kifaata bokk na ci sens bi mu am balay boobu ñu wax ni masdar la moom kifaata masdar la ci kafata kafata ci la xotti ko istiqaaqul kalima min kafata mi ngi jóge ci kafata kafata nag am bari na lu muy firi dinañ ci ñëw damay bañ a ñëw ci benn firiin rek dama bëgg a ñëw ci firi yépp donc kifaatan masdar la ci kafata waaye masdar la ci kaafata buñ ko tëggee ci fi'lu faala fi'alan mu faala tan muy kifaatan borom bi ni ñun ñoo def suuf mu mel noonu léegi nag bala ñuy ñëw ci won leen image bi suuf amee encore ci ay melokaan yu bari yoo xam ni dafay euh, kifaata bi daf koy firi dañuy njëkk a ñëw ci luxatan baat bi pirin yi mu am bokk yi kifaata baat bi mu jóge muy kafata dana firi buñ waxee euh, kafata shay'a mooy dammahu ila nafsihi euh, nañu xool dictionnaire yi bokk yi gëstu kafata shay'a mooy jël na dara tampe ko ci boppam mooy ñoddi ko ci boppam ëmb ko ci boppam kafata shay'a mooy lu nekkoon ci sa kanam nga jël ko ëmb ko boole ko ci sa ci sa bopp wala ni acier di def weñ acier ni muy def weñ gu nekk ci kanamam loolu ba tey kaft la dégg waaye bokk na ci sensu kafata dinañ wax ar rajulul kaft mooy bu fekkee nit ki dafa gaaw dafa gaaw ba pare oyof dafa boole ñaar mooy woyof na gaaw na nit koo xam dafa oyof ba pare gaaw danañ wax ar rajulul kaft beneen sansangoog kon ba tey kafata day firi gaaw na oyof na bu dee ci alxayl muy lu mel ni fas yeeg yu ni mel jur gi buñ waxee alxaylul kaft mooy fas woo xam ni maanaam dafa dafa mën a bajantu kenn mënu koo téye day tëb di daal mooy kasirul was ba waaw shadidul was ba maanaam fas woo xam day tëb dal ba kenn mënu koo téye li ñuy wax fasu màmb di tëb di dal di daw nu fasu màmb ku ko mës a fekke gis ko ni muy dawee ci àll bi di tëb di dal te kenn mënu koo téye loolu tam kafata daf koy daf koy amee bokk yi euh, kafata bokk na ci sens yim amee bu waxee kafata taair maanaam bu dee ci njanaaw luy naaw mooy ni picc gaawe ci naawam muy ñanaaw ni mu gaawe ci naawam ba pare di def nii buy naaw di def nii di def nii maanaam di yéeg di yéeg ak a wàcc loolu tam day firi kafata sens yi ma wax yëpp euh, baatu kafata dictionnaire yi muy maajim yi indi nañ ko ci ak yeneen sens waaye yi ma leen jota tuddal yëpp suuf daf koo amee bala ñuy avancer dañuy ñëw ci sens bu njëkk bi mooy kafata shay'a mooy dammahu ila nafsi mooy ñoddi na dara ci boppam bokk yi scientifique yi dañoo saxal ni suuf dafa am jazibiya te loolu mooy li wér mooy jazibiya boobu sax dinañ indi aaya spécial boo xam ne yàlla daa wax ni suuf am na jazibiya te mooy wa anzalnal hadida fihi ba'sun sadid dégg nga wa manafi'u linnas kook danañ ci ñëw suuf dafa am benn force rédutable muy lépp loo xam daf koo wër fii ba ca kaw lu ma trente et cinq kilomètres ci kaw lépp lu ko lu ko tiim moom suuf daf koy di ci boppam pour nga dégg li may wax mooy lépp lu dagge ci garab ci suuf la jëm au lieu que mu naaw jëm ci kaw mooy day def direct ci suuf lan moo ko indi ci suuf mooy suuf dafa yor melokaanu kaft mooy day ñoddi lépp loo xam ni da ko wërte génnul frontière am suuf nag am na frontière bu mu yem ci kaw ci ni mu ronwe nii ngeen koy gis mën na ñoo suuf suuf lu ron la wàll gu nekk ay nit a ca dëkk am na ñoo xam ne dañoo juutu moment boo xam suuf day juutook ñooñu ñu ñu ñu ñu seeni bopp féete féete suuf seeni tànk féete kaw ci suuf am ñoo xam ni nii lay nekke seeni bopp féete nii dégg nga seeni tànk féete nii am ñoo xam nii parce que day wëndeelu mu ngi mel ni rek ni ma leen koy misaale bal bal boo téyee di ko wëndeel wàll gu nekk ay nit dëkk fa te téewul duñ ci yëg dara ñoo ngi ci kawam di dox waaye lépp loo xam ne nii dafa dafa dafa génnul frontière suuf rek suuf daf koy xëcc ci boppam moo tax avion buy naaw dañ koy defal moteur ak force boo xam ni daf koy jeñ forcement waaye xool côté bi ngelaw li jëm mu mayaale ko doole pour mu yéeg sinon du dem suuf daf koy xëcc dox gi ñuy dox ci kaw suuf tam bu ñu yëkkatee suñu tànk du ñu naaw mel ni xob jëm ca kaw suuf moo ko def suñu lépp suuf daf koy xëccaat daf koy jazb indiwaat ko ci kawam nga xam ni néewuñu fër naaw te normalement li li xel nangu mooy noonu lañ waroon def mooy waruñ woon a am équilibre ci kaw suuf ndax gis ngeen lu mel ni yàlla sànni ko ci benn espace rek ak ndànd fay-fay ñu ne ci kawam ni te neewuñ fay naaw jëm ci eh, ci ci ci ci espace bi loolu miracle dëgg la donc dafa amee melokaanu kaft boobu mooy lépp lu nekk ci biiram daf koy ñoddi ci boppam alam naj'alil arda kifaata benn melokaan a ngi noonu ci firi bi ma leen jox bokk na ci li ma leen wax sànq mooy day firi ku gaaw te woyof loolu tam nañu xoolaat suñu vidéo bi ñu xool suuf gaawaay bi nga xam ni vitesse bi nga xam ni moom lay daw toppe ko jant bi joxoon naa leen ni leen vitesse jant bi mi ngi daw euh, euh, mu ngi daw deux cent vingt-deux kilomètres defe ci euh, seconde bu nekk moom lay daw vitesse bu gaaw la mais suuf daf koy toppaale xool ngeen suuf ci image bi gaawaay bi mu gaaw di topp jant bi loolu leeraloon nañ ko kon li li sensu baat bi am ba tey gisaat nañ ko fi mooy loo xam ne dafa gaaw waaye ba pare woyof suuf lu woyof la ci ci ki ko bind ci yàlla ndax xool ngeen ni mu woyofe moo ko permettre mu mën a ànd ak jant bi di dem te yonent bi sallallahu alayhi wasallam misaaloon nañu ci xadis ni euh, ci ci misaalam moomu ni laafuyoo sax gën moo ko gën a woyof ca yàlla loolu nag leneen la beneen xóotal la mooy ci bind waaye ci gàttal daal suuf buñ ko comparé ak espace bi mu nekk ak planète yi mu fi nekk lool ak galaxie yi mu fi nekk lool du doon dara en même temps tam nit mën naa diis ba pare ñu ni kii de dafa am yaram waaye ko woyof la maanaam woyofaay mi ngi aju rek ci activité bi muy def mouvement bi muy def ni mu koy defee ni mu ko jekkoo donc woyofaay bi suuf di demee waaye wax naa leen bu dee ci fas ni muy tëbee di dal kook itam sëñ Maxtaar mën nga ñoo indil image u fas wu màmbu ngeen xool ko même ni fas bii di def nañu xool suuf ni muy toppee jant bi day tëb di dal kenn mënu koo téye mu topp jant bi day tëb ak a wàcc kifaata loolu tam baatu ki faata daf koy firi alam najalil arda kifaata faata nga bokk na ci tam euh, ci yi nga xam ni am na ko mooy taqallaba zahran li batnin wa batnan li zahrin dégg nga taqallaba zahran li batnin wa batnan li zahr mooy loo xam ne nii dafay yéeg dafay maanaam dafay jàllarbiku la féete woon ci kaw ñëw ci suuf li féete woon ci suuf ñëw ci kaw kooku melokaanu suuf la bokk yi xam ngeen ni suuf toujours ci ni période yi di demee moment bu nekk gàncax gi mi ngi dee di duggaat di seyaat ci biiram suuf di seyaat ci biiram waaye muy génnewaat tamit li nga xam ne nii mooy euh, gàncax gi mu naataat waaye di ñu génnelaat li nga xam mooy ndox mi mu demaat ci kaw asamaan si kook tam dinañ ko beral spécial euh, ndox mi nan lay yéege ci kaw asamaan mooy jàllarbiku googu suuf di jàllarbiku di jël li féete kaw dugal ci suuf li féete suuf mu génne ci ci kaw loolu tam baatu faata daf koy firi te sens yi ma wax yépp bokk yi suñu xoolee suuf daf ko amee léegi suñu xoolee kon aayab alam najalil arda kifaata ndax du ñun ñoo def suuf mu nekk loo xam lu kifaata wax nañ kifaata mooy day ñoddi day am na sensu ñoddi lu loo xam ne daf ko wër suuf day def noonu mooy lépp lu nekk ci kawam moo ko téye ba demut feneen ba néewul fa yi naaw waaye itam eh, dafa gaaw nu muy dawe waaye itam dafay yéeg a wàcc waaye itam li gën a yéeme mooy picc picc muy njanaaw buy naaw scientifique yi ñoo trouvé ni njanaaw ndekete naawul jub xocc njanaaw yi ci kaw bu ñuy naaw nii la ñuy naawe image boobu itam sëñ Maxtaar nga won ñu ko ñu won leen njanaaw ni muy naawe xool ngeen zigzag bi muy def mel ni resol bu ñu xoolee suuf ni muy wëree jant bi war koo toppale nii la comme rësool mook ni picc di naawe ci kaw ku ne ci suuf nag di xool picc muy naaw wala njanaaw doo ko xam dangay ngay foog ni dafay jub xocc fekk ni nii lay naawe nii lay naawe bu ñu delluwaatee sax wa kullun fi falakin yasbaxoon baatu sabaxa li muy mooy feey bokk yi kuy fay cim ndox ku ne xam na ni nii lay def nii lay def loolu bu ñu xoolee melokaanu suuf ni muy toppe jant bi melokaan boobu la am yéen a ngi koy seen nii donc kon alam najalil arda kifaatan ahyaan wa waata mais li ci gën a yéeme mooy kifaat boobu muy def muy ñàkk regle googu suuf ñàkk a di tëb dal li ci yéeme mooy ahyaanu amwaata ñu ngi dund ci kawam te daanu wuñu suñu tabax yi suñu étage yi am istiqraar muy am stabilité suñu gratte-ciel yi am stabilité ci kawam suñu péage yi suñu pont yi suñu géej yi suñu dex yi lépp am stabilité ni deng dara dérangé wul dara naawul dara jëmul fenn axya liy dund ngi dund waaye wa am waata li faatu ba nekk ci biir tam jàllar bi génn te normalement luy tëbaka dal su yàggee li ni ci biiram daa war ni daa war ni pullet génn waaye li faatu ñun li ñu faatule ñu def leen ci suuf ak li nekk ci digg suuf di tàkk muy muy li nekk ci diggu suuf loolu tam dinañ ko beral émission spéciale muy euh, euh, médiatique bi nga xam ni moo nekk ci diggu suuf di tàkk tàkk bu doy waar lenn génn ci lu dul fu soob yàlla rek mu xar benn côté def fa volcan wane ni def leen attention lii mën naa koo def ci suuf sëpp des fois ñu gis zone yu am volcan suuf xar côté boobu dara génn fa ci tàkk-tàkk faagaagal zone boobu tàkk-tàkk boobu moo nekk ci biir suuf yàlla mënoon na ko def suuf sëpp mel noonu kenn du fi mën a dëkk donc kon ahyaa am wa am waata suuf nii muy demee di tëbaka dal téewul mi ngi téye ñiy dund ci kawam ñuy dund dund gu dal li faatu tam ñi ngi ci biiram faatu mu yore leen ànd ak liggéey yi yépp muy def baatu ki faata bokk li muy gàtt gàtt sens yi yépp amee na ko te sens yi mu amee yépp réellement scientifiquement noonu lañ ko gisee nii lañ ko gisee kon kon même sens yi mu am ci langue arabe yépp même sens boobu mu dëppoog li scientifique yi trouvé ma dellu fàttali la ma doon wax ni li muy firndeel mooy yàlla mi wàcce alquraanul karim mooy même yàlla ji nga xam ni moo bind lii di univers bi ak li nekk ci biiram muy suuf ak li mboolem wër mbooleem lu scientifique yi trouvé benn yàlla bila du ñaar yàlla kon suñu aayaa ngi noonu alam najalil arda kifaatan ahyaan wa amwaata waaye wa jaxal naa fiiha rawasiya yàlla nee na ma def ci biiram moom suuf ay montagne saami xaatin yu kawe te am doole te dëgër wa asqaynaakum maan furata ma nàndal leen ndox mu neex dinañ beral émission spéciale rapport bi montagne yi am ak ndox mu neex maanaam montagne yi ni ñuy purifier ndox mu neex di ko joxe li ci scientifique yi wax ak laay jooju suñu borom lëkkale ni ma defal leen ay montagne yu kawe te dëgër daal leen di nandal ndox mu neex dinañ ko beral émission ngeen gis ko ay image incha allah waaye tey suñu aaya moo doon alam najalil arda kifaatan ahyaan wa amwaata ndax du ñun ñoo def suuf mu yore melow kifaat mole melow kaft comme noonu ñu ko firee bokk yi te maajim yi indi ko muy dictionnaire arabe yi sens yi ma wax yépp jox nañ ko ko moom euh, kifaata waaye bi may daaneele te mu génnoon sama xel mooy kaafata dina firi njëkkante ne saabaqa suñ ne kaafatahu mooy saabaqahu njëkkante na moom cest à su ma ne kaafata nii ibrahim mooy ibrahim njëkkante na ak man kooku ma tëje ko émission bi sëñ Maxtaar nga woon bokk yi ni suuf di njëkkante geneen planet yi di rawanteek ñoom kaafata xool ngeen suuf ni mu ngi rawantee moom moroomi planète yi dañuy daw mel ni dañuy rawante bañ jant bi bàyyi leen ginnaaw ku ci nekk di def mu musaabaqa ak sa moroom te kaafata daa bokk ci ay sansam mooy rawante na kaafatahu yaani saabaqahu loolu tam sens boobu kaafata am na ko kifaatan di masdar ji waaye réellement en réalité scientifique noonu lañ ko gisewaat moom suuf mu demee noonu ni ko yàlla bindee kon daal li ñuy wax mooy suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam niñ ko baaxoo waxee wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuuxa ñu jox leen dig daje ci suñu ah, cinquième numéro incha allahu taala ci l'univers coranique fii ci As-Samadiyya TV wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sanurihimu ayatina fil afaaqi wa fi anfusihim حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد